اهد جميعنا الصراط المستقيم وبسعي كلنا بلا سقيم اهد جميعنا الصراط المستقيم وبسعي كلنا بلا سقيم لك الخدام يا قريب يا مجيب يا ذا الصراط المستقيم قبلنا هدى به يبتنا من قبلنا يا ذا الصراط المستقيم قبلنا هدى به يبتنا من قبلنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا واجعل لنا سواد دين فائقا وتكفنا ندما ñëw fi tey ngir inauguré poulailler bii nga xam ne sunu mbokki turki yi ñoo ko financé ci ndimbalul fédération bi di ittihaadu atbaa'ul xadim li taawuni wa tamassuk bi diinil xawim ñu ciy sant bu baax kon balaa kàddu gee gudd rek dañuy daal di dugg ci liggéey bi dafa mel ni kon ki nga xam ne tey moom lañuy ñuy njëkk a jox kàddu gi mu dalal gan ñi mooy borom dëkk bi di monsieur le maire mooy premier citoyen de la ville monsieur le maire Mbaye ndax bu fekkonte ne bii eh, naajul sax dana gën a yaatu loolu waaye nag nii rek la mën a demee nañu ko comprendre noonu kon ñu jox monsieur le maire kàddu gi mu def kàddu gu njëkk gi dalal jàmm gan ñi nu jublu ci liggéey bi rek ndax nu bañ fee yàggat incha allah. soyez en remerciés et soyez également notre interprète auprès de vos autorités qui encore une fois cet acte magnifie les très bonnes relations existant entre la Turquie et le Sénégal et coopération qui se matérialise et qui est visible au Sénégal je pense que le président de la République Macky Sall ne s'est pas trompé en s'ouvrant vers la Turquie car si vous êtes à Dakar, à l'entrée de Djamnyadjo, vous verrez des infrastructures d'envergure internationale réalisées et financées par les Turcs. Donc ceci n'est que le prolongement de la coopération sous un autre angle. Je voudrais, en tant que maire, au nom des populations, vous dire encore merci. Mais également, vous demander de continuer à assister les populations, particulièrement le Daïra Wilaya, très organisé, très structuré, très dynamique dans toutes ses composantes. Aujourd'hui, les femmes. Nous sommes vraiment reconnaissants. Et je sais que si vous revenez ici d'ici 8 mois, 1 an, vous verrez que votre investissement a été utile. Puisque déjà, ils sont en de produire des poulets, ils sont en de les vendre, et ils sont en train de gérer de manière rationnelle les ressources financières. Donc, euh, monsieur le représentant, je voudrais en ces vous témoigne de la gratitude, de la reconnaissance de la commune de Taïf et vous dit que nous serons toujours à côté de ces populations tant que vous serez là également pour les aider. Parce que ce que vous êtes en train de faire, c'est la commune qui devait le faire. Vous vous êtes suscité aux communes pour aider les femmes à emploi, avoir un emploi, mais également avoir des revenus décents. Encore merci, merci. Euh, salaamaaleykum mbooloo mi maa ngi jéglu bu baax ci kàddu yi nag. Euh, dama bëgg rek feeñal mbekk mi ñu am ci kanam partenaires yi nga xam ne ñoo fi indi lii. tey nag gis nañu ne daayira wilaaya da ngeen dem ci beneen facette maanaam xam nañ leen ci organisation ci sociale yépp mais ci lii moom da ngeen dem ci beneen niveau muy créer emploi créer une entreprise ba pare teg ku ci ay loxo ngir rek au-delà de ce li ngeen di def yeneen ngeen boole ci liggéey yàgg ngeen ko def nag mais lii. xañ na dafa nekk coopération ngeen sequ ay réew réewum Turquie loolu nag commune bi xañ na la waroon mais dama ne ñun dañu am chance am wilaya nga xam ne lu ci bari tey bu ñu wéeroo ci moom rek war nañ ko mën am euh, ñi ngi am mbégte bu baax a baax di wax ne projet yu nii ah en tout cas fu ngeen ko am te jàpp ne commune bi am na ci lu mu war a def incha allah dañ ca taxaw def ko parce que ki nga xamante ni li muy def yaa ko war a def bu koy def war nga ko gunge kon suñ daan su ma waxee yow rek wax naa ak mbooloo mi yëpp gis nañ taxawaay bi ñëw nga fi ñëwati fi saytu ko ànd kook ñu ngi ko war a àndal ci dëkk bi ñëpp su ma limee damay juum mais nag li bettuñu ci seen organisation ci ni ngeen structuré ci ni ngeen di doxee lépp teg ko ci euh, professionnalisme bañ ko teg ci amateurisme loolu moo waral tey résultat bi am donc daal euh, kàddu yu mbégte ñaan suñu borom. ah partenariat bi gën a law ñi nga xamante ni ñoom lañ jox lii ñu koy saytu ñu xam ne bu dee ñaar wala ñu ñett ñoo fi teewal mbooloo mi ñëpp ñu fexe ba xam ne su baaxee mën naa indi leneen nag la leneen te it ñii nga xam ne ñoo ko fi indi bu ñu fi ñëwaatee di ko visiter gis ne am na yokkute dina leen sawarloo ngir ñu ma indi yeneen investissement kon ñu ko yor ñu ngi leen soññi bu baax waaye ñu koy saytu ci ginnaaw yi ñu bañ a ñu baña a bàyyi ndiku rek di gën teg pression ci ñu ko yor ngir jot naa ci am information ci Madame la maire ci ni muy doxee mais gis naa ne c'est un exemple à divulguer exemple boo xamante ni war nañ ci mën a roy waroon naa gën a yaatu waaye comme ni ko suñu daan waxee rek xat-xat yi ak toogaay bu yàgg bi moo tax yu bari muñ koo développé jërëjëf. jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatullah chers invités asalaamaaleykum excellence mesdames et messieurs chers invités. Euh, c'est un immense plaisir de vous accueillir aujourd'hui ici à Taïf pour l'inauguration de ce formidable outil de travail réalisé entièrement par votre pays, la Turquie, la République de Turquie, à travers son agence de coopération. Ce projet destiné aux femmes de la wilaya et de la section de Taïf est venu à son heure. Venu à son heure compte tenu de la situation économique et financière difficile que vivent nos communautés dans leurs différentes composantes. Nous savons tous que devant de telles difficultés, les couches les plus vulnérables, c'est-à-dire les femmes et les enfants, sont toujours les plus touchés. Ceci pour dire combien c'est important pour les bénéficiaires, je veux dire les femmes de la wilaya de Taïf. Nous ne pouvons pas nous exprimer au nom de ces femmes, effectivement, parce qu'on ne saurait jamais traduire à travers notre voix leur sentiment de joie et de satisfaction. C'est pour cela, nous allons tout à l'heure leur laisser la parole, mais auparavant, nous allons porter à votre aimable attention la parole du président de la Fédération des groupements religieux et culturels des disciples de Cheikh Bamba je veux dire, je veux nommer bien sûr son Excellence Serigne Moustapha Mbaké. Par ma voix, son Excellence Serigne Moustapha Mbaké vous remercie infiniment pour la réalisation de ce projet si important. Du point de vie financier, mais aussi pour son utilité et son impact direct et indirect sur les populations bénéficiaires. Cette réalisation entre parfaitement dans le cadre des missions de notre fédération. En fait, une de ses missions énoncées dans ses statuts, en son article 3, cite ceci. La fédération doit initier et exécuter des programmes de développement communautaire à travers des projets. Fin de citation. Pour réaliser de tels objectifs, la fédération travaille en parfaite collaboration avec les structures publiques et privées et des partenaires au développement, en se basant sur un système de solidarité et d'entraide entre nos membres des différentes entités. En effet, pour bien mener sa mission, la fédération s'est organisée en daïra, c'est-à-dire la plus petite entité de notre organisation, en sous-section et en section. Elle est présente dans toutes les régions du pays et même à l'extérieur avec sa composante diaspora répartie en zones géographiques. Dans chaque section, je veux dire, nous avons trois entités, à savoir la village jeune, la village adulte et la village femme. C'est la composante aujourd'hui de la village femme de la section de Taïf qui a bénéficié de ce financement de la République de Turquie à travers son agence de coopération. Aujourd'hui, la joie et la satisfaction ne peuvent être mieux exprimées que par ces vaillantes femmes bénéficiaires de ce projet combien important en termes de revenus directs et indirects générés par ces activités. C'est pourquoi Les femmes prendront tout à l'heure la parole pour faire passer leur message. Mais je ne saurais terminer, Excellences, Mesdames et Messieurs les invités, sans faire part de la reconnaissance et de l'entière satisfaction de son Excellence Serigne Moustapha Mbacké, président de la Fédération. Par ma voix, Serigne Moustapha tient également à exprimer son souhait à travailler davantage avec la République de la Turquie à travers son agence de coopération pour la réalisation de ces projets de développement. En effet, nous osons espérer que cela va continuer ainsi, car l'excellence des relations diplomatiques de nos deux pays et les relations particulières d'amitié et de fraternité de nos deux chefs d'État nous permettent d'espérer pouvoir collaborer davantage pour la réalisation d'autres projets de développement. Excellences, chers invités, nous ne serons pas être trop longs Mais avant de terminer, nous devons vous témoigner encore nos sentiments de satisfaction et de gratitude envers la République frère de Turquie. Encore merci. Merci pour tout. jërëjëf